mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rek ñu amaat mbégte àndaat ak yenn fas yéene dëgtal xibaaru tey yi li si gën a fës nag ñu daat koy tàmbaleeg li nga xamante ni mooy jëye bi am foofee ca Touba. mu di ñaari xale yi nga xamante ni dañ doon xeex ba kenn ki moom daal di faat euh, ka ca des loolee nag mu ngi am ni kii démb rek ca quartier boobu ñuy naan euh, Kër loolee nag mu am gannaaw rek ñaari xarit ñaari xarit yooyee sax doxoonoon ay euh, coow yu sew a sew rek ba kenn ki moom daal di jël paaka daal kay jam morom ba ca noonee nag la daal di ñàkkee bakkanam ñi nag di waa gendarmerie ñoom daat nañu jël ki nga xamante ni moo def jéye boobee daat koy yóbbu ci polisu guy mbindi ñu desandi rek ci xibaar yi daal di àddu wax ci beneen jéye bu nga xamante mu ngi xewee fële ca Médina gannaaw rek ab dal bu nga xamante ni daat nay daanu si ab xale bu toll rek si ñaari at loole nag mu ngi amee ca rue 41 angle 30 gannaaw rek nga xamante ni dal boobee nag daan nay daanu ba daal di faat xale boobee nga xam ne rek mu ngi am sa ñaari at ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkoon ca batiment boobee ñu ngi leen di daal di yóbbu fële nga xamante ni mooy si centre socio culturel bu amiñ ci ki def loola nag du kenn ku dul maire wa di war di ni gannaaw rek ba mu yëgee ni njaaxare boobee dal na si ñi nga xamante ni ñoo di ay dëkkandoom waaye nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ba tey nag bâtiment yooyee ñoom nag nga xamante ni ñoom ñooy waa mairie bi dañ ko recensé woon pour mën leen daaneel waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ca bâtiment boobe ñoom dañuy lànk rek ni duñu wax ñi nga xamante ni ñooy autorité yooyee ñan ñoo moom bâtiment boobe pour ragal rek ñu daal leen génnee sa kër yooye ñu daal di àddu rek daal di wax ci leneen wax ci li nga xamante ni mooy immigration clandestine bi ak ki nga xamante ni mooy euh, duudu ñu gën kaa xamee ci petit duudu xale boobee nag nekk amoon si fukki at ak ñeent kookee nga xamante ni moom dafa ñàqoon bakkanam gannaaw rek ba mu duggee ci ab gaal di jéem a dam fële ca Espagne ca noonee nag lañu jàppee woon kii di waajuram bu góor moom moomee nga xamante ni moom moo ko jëloon daat koy dugal ca gaal googee pour daat koy yóbbu ca Espagne bu ñu sukkandikoo nag ca xibaar yi nga xamante ni am nañ ko kooke war nañ ko taxawal ndikki tey mu daal di jàkkaarloog ak juge bi fële nga xamante ni mooy ca tribunal bu bu bu Mbuur gannaaw rek nga xamante ni daf na jéye moom nag bu ñu sukkandikoo ci tey ba tey rek ci xibaar yi moom ak yeneen ñaari waajur moom war nañoo war nañoo dox sax daal di jàkkaarloog juge bi gannaaw rek ñoom ñooñee tamit bañ jëlee seeni i doom daat koy dugal ca même gaal googe pour yóbbu pour yóbbu leen fële nga xamante ni mooy ca Espagne waaye nag euh, gannaaw ñooñee gannaaw ki nga xamante ni mooy duudu nag ña sa des moom euh, rek euh, yàlla dimbali nañ leen ba ñàkkuñu seen bakkan sa boobee nga xamante ni moom lañ doon amal pour dem fële ca Espagne. dañuy desandi rek ci géej gi daal di àddu wax ci feebar bi nga xamante ni moom moo dal mool yi nga xamante ni mooy moolu Sénégal yi li nga xamante ni nag mooy état du Sénégal dafa mel ni rek moom dafa déterminé wu pour mën a rek xam li waral feebar boobe ndax kat bu ñu sukkandikoo ki nga xamante moo di Abdou Karim Sall di ministre. ministre de l'environnement moom li mu daal di xamle mooy kan ni kat jël nañ ay prélèvement pour daat koy yóbbu fële nga xamante ni mooy ca laboratoire ba pour mën a xam lan moo waral feebar boobee nga xamante ni rek moom moo wéy di jur ay njàqare si moolu Sénégal yi moom nag li mu daal di xamle mooy ay algues moom daal nañ leen jël maanaam ay wàkk yoo xamante ni jël nañ leen pour yóbbu leen ca bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey moom li mu daal di xamle mooy daanaka malade yi nga xamante ni wala sax ñi nga xamante ni ñoom la feebar bi jàppoon daanaka ñëpp rek daat nañu wér. ba ñu laan yóbbu fële nga xamante ni mooy ca seen kër moom nag ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni mooy l'observateur pêcheurs yooyu nag maanaam mool yi moom dafa mel ni moom dañ siy jaar di occasionné wu rek daal di fexe rek ba mën a xeex seen i doléance ndax kat ñoom bu ñu sukkandikoo si ñoom li ko dalee le 4 décembre ñoom war nañoo amal ab marche pour mën a rek fexe ba état du Sénégal joyanti leen li nga xamante ni moom la ñuy dundee ci seen secteur bii di géej gi. ci gouvernement boobee sax euh, la ñuy desani daal di wax rek nga xamante ni jàkkaarloo bi nga xamante ni ñoom war nañ ko jàkkaarloog ñii nga xamante ni ñoom ñooy presse euh, nationale bi loolee nag mu ngi am fële ca building administratif si jamono jii ñuy wax ak yéen sax xanaa daa war na daal di tàmbale ndax kat ñoom ñoo ñee nga xamante ni ñoom ñooy waa gouvernement du Sénégal ndi kii barki démb la kii di Macky Sall daal di jël dogal boobu daal di wax ni kat ñii nga xamante ni ñooy ministre ñoom chaque 15 jours rek dina am ñenn si ñoom ñu nga xamante ni dinañ daal di jàkkaarloog presse bi pour mën a wax ci leen seen i domaine maanaam wax ci li nga xamante ni secteur bi ñu leen dénk ñu daal si leeral askan wi wala sax population bi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal loolee nag mu ngi war a commencé niki tey à partir de 10 heures mu nekk ca dixième étage bu building administratif niki tey nag moom lu tolloog si euh, juróom-ñetti ministre moom tasanteeg ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi. bu ñu jugee ci loolu nag dañuy àddu wax ci li nga xamante ni mooy mbas mi di coronavirus ak tolluwaayam fii si Sénégal gannaaw rek 524 tests yoo xamante ni daal nañ koy amal 11 yi rek ñoom ñoo am doomu jàngoro ji. ca onze yooyu nag cinq yi ñoom ñoo nekk ay cas contact suivi six yi daal di nekk ay cas issus de la transmission communautaire onze patients nag maanaam euh, onze malades ñoom daal nañ leen faj ba ñu wér ba war a génn niki tey foofe ca lalu hôpital yi trois cas graves nag ñoom ñoo nekk ba tey rek fële nga xamante ni mooy sa lalu sauvetage yi benn nit nag daal na si ñàkk bakkanam niki démb ba mbas mi dugg see si Sénégal ak tey nag am nañ lu tolloog quinze mille neuf cent huit cas positifs ca quinze mille neuf cent huit yooyu nag quinze mille cinq 127 yi ñoom daal nañ leen faj ba ñu wér waaye nag 331 ñoom daal nañuy ñàq seen bakkan nii ñuy waxee ak yéen nag lu tolloog si 49 malade ñoom ñoo nekk actuellement si lalu hôpital yi dañ koy jeexalee rek ak wàllum tàggat yaram ak international sénégalais bi nga xamante ni mooy Sadio maane tey yëngu fële ca Liverpool gannaaw nag fukki joueurs yi nga xamante ni nominé lañ leen pour rek lii nga xamante ni mooy trophée meilleur joueur Europe. moom nag gannaaw moom Sadio maane nag moom rek mooy benn africain bu nga xamante ni daat nay bokk si fukki nit yooye moom nag saajo maane mu si ànd ak ki nga xamante ni mooy Serge Gnabry nekk fële nga xamante ni mooy ca Bayern Munich. ak ki nga xamante ni mooy Immobile nekk ca Lazio waaye Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni moom moo nekk fële ca Juventus ak Karim Benzema bu yëngu fële ca Real Madrid ak ki nga xamante ni mooy Lionel Messi ak Lever Robert Lewandowski mi nga xamante ni moom moo nekk fële ca Bayern nit nga xam ne sax moom la ñuy njortees ni moom moo war a jël trophée boobee li nag mooy nekkoon li fi gën a fës euh, tey euh, di leen jox rek euh, dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar rek si seen chaîne YouTube bii di Mak TV Sénégal te di leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification pour ngeen mën a am suñuy information au temps réel